ko jël ba pare nañ ko tasaare ba mu egg fi mu war a yegg yëpp waaye li am Fuuta doy na waar mooy amul benn réew ci àdduna réew bu normal réew bu normal ci àdduna boo xam ne l'institution présidentielle présidence institution la moo tax ñu aar ko aar aar aar ba léeg su nit waxee sax ñu woo article 80 institution boobu sécurité mënul nekk ci ay loxo milice privé loolu amul fenn ci àdduna loolu de ñu ngi koy doog a gis nga jël institution bu ne ni présidence de la république daa di jël sécurité am kaaraangeem nga ne léegi damay dem recruter ay nervi yoo xam ne amuñu benn responsabilité vis-à-vis de l'état du Sénégal ne leen nag yow yaay assurer kaaraange président de la république état de su eggee foofu. mooy état amatul nërmelu état mënul weesu loolu un président de la république en fonction bu dem recruter benn armée de Banyamulenge taxaw sa kaw oto gis sa milice privée di attaquer ay sénégalais yoo xam ne defuñu benn tort lu dul sa échec politique économique et social lañ ñëw taxaw fàttali la ko ñu leen di dóor sa kanam nga taxaw sa oto di jubilé loolu mi ngi doog a am ci àdduna guléet ah man de mosuma koo gis peut-être ci jamono dictature yu njëkk ya daan na am loolu mbokk yi lu garaaw a garaaw la lu ñu mënut a nangu la waaye ñu war cee am ay jàngat ñu war cee am ay jàngat bi ci njëkk mooy dafa confirmer li ñëpp doon wax bi ñu génnee ci événement mars yi moom dafa woo ay ministre am ñu yooxu dëkk bi yépp daal di def seen soi-disant nuñ ko tuddee sax mémorandum nee nañu ñun ñooy terroristes yi ñun ñoo fi andi ay forces occultes mooy ay ay ay uh, ay samba yoo xam ne dañ leen a recruter fay leen pour ñu taal réew mi ñu ne ñun ñoo taal réew mi ñun ñoo reylu nit ñi bañ leen tontoo dañ leen ne. xale bu am ñaari at sax ci Sénégal xam na ne li ngeen di wax ni waxu ko daanu si la ñëpp xam nañ ni yéen yéen a def mbir mi waaye teguñu ci ñetti weer mu mu firndéw tey moom mi jiite mbir mi moo dem ut ay samba booyam ay force occultam di leen yónni ñuy dal ci kaw Sénégalais yi loolu premier jàngat bi la il n'y a qu'un seul terroriste au Sénégal wala qu'un seul apprenti terroriste mooy Macky président de la République ab terrorisme nag bu yor les moyens de l'État kooku musiba la loolu dañu bëgg mu leer àdduna bi yépp nag wër na fa ne ñun ñooy terroristes yi dem na ba daal di def dénonciation États-Unis nga xam ne ñoom dañoo sensible trop ci lépp lu jëm ci waxu terrorisme foog ni fi ñu jaaroon ak assan Diouf dinañ fa jaar ak Ousmane Tounkara ba ñu demee ci procès bi Ousmane Sonko lañu fa yóbbu dossier yépp laaj leen journaliste Pape Alé Niang mi newoon ci procès ba ñu ne leen kii du terroriste te duñ ko delloo loolu nag ñaari camp bu ñuy jaamarloo nga ne nga jiiñ ko ca lenn ñu ne la kooku du loola lañ la bëgg a delloo mooy yow moomu yaay terroriste bi fu ne wër nañ fi ci àdduna gis nga lii lii ay ay ay ay fax la ñu envoyé seen ambassade yépp boole kook seen mémorandum ne leen su ngeen demee wax leen nit ñi ne Ousmane Sonko mooy mooy danger senegal moo bëgg a taal réew mi ku bañ senegal la ku bañ àdduna la terroriste la mi ngi nii ay ambassadeur ay ambassade la jóge ñoo ma ko jox waaye lii firndeel na ni archive yëpp a ngi fi te dinañ ko jaarale fi mu war a jaar ba mu egg fi mu war a egg qu'il n'y a qu'un seul apprenti terroriste parce que su ma nee apprenti li ma ci bëgg a leeral mooy mënul terroriser les Sénégalais loolu tam dafa war a leer su dee loolu la def ci boppam bu yóbboo mu mu teggi ko bu yàgg parce que dafa xamul jaar-jaaru réew mi dafa xamul lan mooy peuple sénégalais bu ko xamoon dina xam ne mënul terroriser sénégalais yi.